alhamdulilahi alladi bi nicmatihi tatimu salihat wa tubaraku alharakat wa tudacafu alxasanat summa alsalatu wassalaamu ala nabiyi rahmati wa kashifi alxummati wa shafii al ummati wa ala alihi wa sahabatihi al wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmi al mbokki jullit yu tedd nekk ci gox yu fasantikoo yi ci réew mi ak ci bitim réew tànn leerak ak jamono di ko leerloo muy rajo télévision bu wal fajri fu ngeen mun di nekk ci àdduna bi rekk maa ngi leen di boole te juróomi baat yi ñu yàlla boole mu gën a tedd gën a sell gën a sakkan doy walis bépp nuyoo te benn nuyoo mënta doy walis ko muy asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu di del siwaat ci kartanal yàlla di sof ak yow li ma sosoon ak yow te mooy waxoon naa la démb ab commerçant dafa war a dëggu bu mu nekk kàccikat te mu nekk lu bari lool ci commerçant yi ab commerçant dafa war a wóor bañ nekk ab xorkat bañ a nekk luubalkat bañ a nekk ku juba di koo xam ne dafa dëng ba moo gën a dëng xale yi ab commerçant dafa war a moytandiku gëñ njaay sariya day bañ ko ci gëñ comme ni muy bañee kuy gëñ ci goreel di bañ kuy gëñ ci pafe waaye ab commerçant dafa war a nekk kuy mën a saraxe gannaaw bu mu fenkee bu mu fonkee génnee asaka ji na fonk di saraxe ci li ko yàlla jox koo xam ne li nga yor tiim ko bët bu set lu ëpp junney bët teg ci seen bët soo bëggee mukki ca bët yooya del def ca gémmañ yi nga xam ne mooy boroom bët ya dara moo tax sëriñ fàllu mbàkke góor ak yàlla gu tedd ga ba waaj a ci moom ne ko sëriñ bi dama bëgg nga ñaanal ma yàlla musal ma ci gémmañ yi sëriñ fàllu ne ko ku bëgg a mukki ci gémmañ yi del wut looy def ci gémmañ yi waaye ku dul def ci gémmañ yi dara mënoo mukki ci gémmañ yi kon boo yoree marchandise moo xam ne lu hëpp bët bu set lu hëpp junney bët tekki seen bët ya fexeel ba gémmañ yooya nga xam ne bu bët xoolee gémmañ ay wax nga wut loo dugal ca gémmañ ya ndax nga mën caa mucc waaye yore marchandise bët ya di ko xool làmmiñ nga di wax bët ya di ko xool làmmiñ nga di wax te doo def dara ca gémmañ yooya ku la wax ne mën nga caa mucc dafa lay jay ku la wax mën nga caa mucc dafa lay wax li la neex waaye boo ca bëggee mucc del sàkk sarax boo ca bëggee mucc del maye boo ca bëggee mucc nekkal kuy def ca biir ya dara waxoon naa la ñeent yooya kon suñ bopp darsa bi mooy juróomeel bi mooy asamaahatu wa taysiir dañuy bëgg ci ab commerçant mu nekk ku jàppandi yi boo dëggoon ak nekk ku wóor faaw da nekk ku jàppandi ci sa jikko sa jikko jooja jàppandi ji moo lay may ku la tooñ nga jéggal ko rawatina muy sab client moo lay may ku la saaga doo ko ko delloo moo lay may ku la lor jëmee ci yow ci wàllu njaay walla ci wàllu jënd yow foo toll dangay ngay tàllal sa xarxaram ba di mu jëmee ci nit ñi ab commerçant dafa war a neex deret waaye commerçant bu naqari deret boo xam ne ku muy jaay boo amul sens balaa njaay maa jeex ngeen xuloo balaa njaay maa jeex ngeen daggante ay saaga dóorante ay kurfañe koo ko gisee rek xamal ne dëggu soo ko gisee rek xamal ne wóorut waaye boo wóoree dëggu rek man ngaa mucc ci jikko ju bon jooja nga xam ne ah, commerçant yu bëri ñu ngi koy jikko jikko boo xam ne koo dajee yaa ngay seet noo koy naxee benn nga bëgg koo nax te du ko xam rek jàng rawatina jànkat tubaab yi du toujours dañ lay jéem a nax te doo xam nax ya rek nga leen di sant di lay gërëm fekk yow ñi reen di nañ la ba ngay bëgg a dee mais xamoo ca dara ñàkk xam xóorut kon xalal muy commerce dañ koo tabax ci sàkku alal ak dajale ko te loolu ak nay da cay xam te sàkku ga ak dajale ga jamaa maalan wa addadahu moo tax kon yàlla bëgg ci commerçant yi ñu nekk ñu tabe ñu yaatu dënn ñu mën a tàllal seen xarxaram xaram ko ci nit ñi nekk ñu yaatu ñu mën a xajoo lu bari nekk ñu mën a encaissé commerçant bu la dàq encaissé kàddu yu bon kàddu yu ñaaw jëflante bu bon kooka mooy ki lay gën a bari lu muy encaissé xaalis waaye commerçant bu la gën a naqarit deret gën laa ñaaw jikko gën laa mën a saagaante gën laa mën a ñeme ñàkkante mooy ki la gën a néew lu muy encaissé kon commercant du ñu ne ñàkkante koo ñàkk-ñàkk ay xameelam koo ñàkk-ñàkk ay ay bokkam moo tax saa yoo ñàkkee kenn nit da yow moom rek a ñàkk waaye nit ki boo ko ñàkkee ngir jëflante bu bon mbooleem mbokkam yu baax yi ko am ñàkkaale nga leen xaritam yu baax yi ko xaritoo ñàkkaale nga leen xameel yi nga ñi ko xam ca wàlloo woowu ñàkkaale nga leen moo tax léeg-léeg nga ñàkk kenn nit kenn nit kooka fekk ay junne junne nit ñoo nekk ci gannaawam kooka boo ci defee ba ñàkk ca téeméer ñaar fukk da ngay mujj ñàkk Sénégal yëpp pertement la na senegal ni ko yàlla ni ko yàlla ràbbee ci ay waasoo ñi ràbbee ko ko ci ay euh, waa maanaam ay waasoo euh, ñi ak kalante ya ak bëggante ya moo tax ku fi bëgg a jël di di xeex ci wàllu xeetoo ak i raasoo ak i waasoo doo ci am ndam kenn mënu koo defee ko yëf ci am ndam mag ñi tabaxoon nañ ko te dëgër na lool tukulóor ba ma ngay tooñ séeréer ba naan tukulóor jaami séeréer séeréer baa ngi koy tooñ naan tukulóor euh, maanaam séeréer jaamu tukulóor demeet pël fuuta baa ngay tooñante dañ gisee ne loola mënta daj ñu dugal ko ci ay kal siise siise yaag ñeseen ya njaayeen yaag njóobeen ya demeet bakkal ya jeex moo tax Sénégal kenn mënu koo taxal ci wàllu waasoo kenn mënu koo taxal ci wàllu raasoo ku ko ca jéem a yëkkati yaa cay def waaye du tere nit ña bëggante soppante ca wàllu woowa kon ab jaaykat dafa war a tabe rafet jikko ci sa jëflante sa tabe sa jëflante googa moo lay may soo amee client mu leb la nga lebal ko te yàlla tax soo ko lebalee mu yéex a fay nga muñal ko soo jegee ne manta fay nga may ko ko mbaa nga sarax ko ko bañ koo toppante foo toll di ko téléphone foo toll di ko gàccaal ci biir mbokkam wala nga koy gàccaal ci ay xaritam kooka baaxut moo tax yàlla yowmal qiyaam dana jot yàlla xisaab ko pour régler ko bam ko xoolee xamul dara lu baax julli yu baax amu ko xamul weeru kor bu baax amul yoonu màkk amul njàng alquran amul dara lu baax moom daal benn bu baax dong la xam dafa nekkoon ku xoomal waxoon doomam yi nekk ci biti yi ak magasin yi ne leen képp ku leen leb nekk ku ñàkk lebal leen ko su mënta fay jéggal leen ko yàlla ne kii di jéggal ki ñàkk kii di jéggal ki mënut man yàlla maa gën a xëy ci jéggale waaye waaye jéggal naa la kon commerçant yi seen commerce ji seen caabi aljaana mi ngi ci seen loxo de su ngeen ko rafetalee ñu ñàkk ñi ngeen leen dibale léeg-léeg waa ji ñëw sax di sa client jamono neexatut nga may ko wala jamono neexatut nga sarax ko wala nga leem dara ne ko yóbbu ko ca kër ga leboon na la mëntu laa fayati léeg-léeg bu ñëwee ba traversé sa koñ bi dëpp léeg-léeg mu dem ba ne fii sens interdit la yow nga fexe dafa langoon nga lànkarti ko laajte numéro am xoo ko ba ñëw ne ko ay sëñ bi yow jàppatuma ci dara jégal naa la lépp ak jël li nga yóbbu kër ga su ko defee loolu lépp relation bu rafet la yàlla ne la yow yaay yaay jéem jéggale man ngay jéem a topp ndor tey nga xam ne maa la dàq jéggale topp ndor dara dugal aljana yonentu bee ko wax mu ne xusiba rajulun mimman kaana qablukum falam yujad lahu min alxayri shay'un illa annahu kaana yuxaalitu naasa wa kaana muusiran fa kaana ya'muru xilmaanahu an yatajaawasu anil mu'siri qaala laahu azza wa jalla nahnu axaqu bi dalika minhu tajaawasu anhu muslim ibnu mas'ud moo génnee hadis bi imaamu muslim solo ko boo demee ci saywul muslim da ci fekk hadis bi kon waaye commerçant boo xam ne toppante ba mu sës rek moom daal bor boo manta encaissé mooy boo boo manta jotati rek te léeg-léeg gaa yi sax dañ lay topp topp ba mu sës ñi topp topp mëntuñ caa jotati ñu far féetale ko yàlla bàyyi ba asaka ji jot rek ñu tiire la ko ne ah, waa ji kat amee loon na ma fan fanweeri junne ci asaka su ma si jotoon mën naa ko ko jox asaka kon naa ko génnee yooyu bokkut loo topp topp ba mu sotti mënoo saa jot nga bëgg koo tiire yàlla féetale ko yàlla foo ko teg daganut sariya nag nee na bu la nit ki yore leen bor nga fay ko ko rek ba pare ne ko saa waay nag bul fàtte ne ameloon nga ma deux cent mille de mu yëkkati ko jox la ko muy asaka joo ko joxoon mu delluwaat dara nekku ci waaye su fekkee nga ko koo joxoon ngir bëgg koo jàppaat te dara taxutoon xel la ba lu dul naa ko jox asaka ji ba ba mu téye ko xam ne moo ko moom mu mën ma koo joxaat moo tax ma koy jox asaka bu na loolu du ma koo jox mukk loolu xaraam na soo ko defee sax asaka ji demut fenn ki ñàkk ñàkk na amul lu mu fayee baal ko ko te yàlla tax yaa ngi tooñ yàlla bu dégg ba cëg di ni ko wërsëgu yàlla gee carte nam gi sax dàq di ko tooñ te yàlla mbugalul la su ko defee boo lëggee yàlla mën laa jéggal say rëcc rëcc ku bëgg yàlla jéggal la dangay ngay jéggale ku bëgg yàlla topp la la yoomal xiyaam del toppanteeg nit ñi dafay dafa may dafa dafa may jaay li mu jaay tey tey mu xam ne man la ko séq ak day jaay reewantu maa ko gën a reew dafay jaay xamadi maa ko gën a xamadi dafay jaay nangam ak nangam maa ko gën a def nangam ma ne mbubam réew ak mbubam jubadee xamadi am ci mbubam ismu faayil xëpp na waxuma la afala tafdil nga taxawati naan lu muy jaay lépp tey ma jënd ko te la muy jaay dara baaxut ca lu kon yow tamit perte nga kon yàlla bëgg na commerçant boo xam ne dafa jàppandi boo ko lebalee mu lebal la soo mënta fay mu may la commerçant boo xam ne du xuloo client mokk du saagaxanteeg ñoom du ñàkkanteek ñoom ba ba si jikki tey mën naa taxaw di kont client am ñaar fukki xatam lu dul lu rafet rekk dox ci seen kaw waaye léeg-léeg nga am client boo xam ne ñu ngi ko présenté nga ko wala triant nga ko wala yow tamit jëndkat bi léeg-léeg nga maanaam euh, client boo xam ne ñu ma too waxati ne sama client la woon ndax seen jëflante ga rafetut yooyu yëpp dafa jar a daw juróom-benneel ba commerçant bi dafa war a xam lu dagan ak lu xaraam maarifatul xalaal wal xaraam waaye di jaay rek yow mbiri lu xaraam ak lu dagan xamoo ca tus boo ko xamul foo jëm danga war a fexe ba xam attey lislaam yi ci jëflante yi jëflante bu ne xam la ca yàlla xatte bala ngaa dugg ci jëflante ga waaye di jëflante yow xamoo li ca yàlla teg te doo dem laaji boroom xam-xam yi yow sa alal dong ngay seet kooka daganut war naa teet li yàlla tere mu jëm koo xam su ko defee li yàlla daganal mu jéem ko xam te jéem koo sóobu moo tax Omar ibnul Xataab moo méngoo woon marché madinatul munawara dafa daan wax ne laa yabiix fi naa ilaa man qad tafaqaha fi diin suñ marché bi ku déggut fiq du fi jaay su fekkoon ne ku déggut fiq du jaay ci marché yi ña fay des du bari de soo déggut fiq dugg ci njaay mi mën nga caa dugal lu ca bokkut mën nga caa génne lu ca bokk waaye suñ marché yi tamit bari nañu ca nekk ñoo xam ne ay fukkaawu lañ jàng nañ ba jeexal téere yi jamono dab leen amuñ fuñ jàngale wala njàngale mi koomatut ak la ca aju ñu hubbu seeni magasin masala moo leen laaj xam nañ ko moo tax ñu yàlla na toowaare buñ xamee seen bopp ñu gën a ragal mooy commerçant yi bari na ci commerçant boo xam ne waat naa ci yàlla nekk na am na ta am na ta amuq am ta makkun am ta baxur fi jamiil funun su boobaa nag boo ko jàppee commerce li rek mu daane la jàng na ba jeexal téere yi dem ubbi bitigam di jaay ku mel noona bu ko ragal yàlla ñu lugee rek la muy def lu lu rafet lay doon lu sell lay doon waaye nag bañ a nekk ku jàng ba pare jàllale bi ku jeng ko baaxul ndax jàng ak jeng ñoo bokkee xaraf te loolu dafa bëri juróom ñaareel ba mooy al iktisaaru min sikrillah ab jaaykat dafa war a bëri lu muy tudd yàlla am nga occasion foofa mën nga di tudd yàlla jàng alquran day ñaan feeg bay client ñëwee bu ñëwee boo leen jaayaate rek delluwaat ci sa tudd yàlla ndax mbiram njaay daal dafa bëri ay soxla yu ci ne yu lay wat lu lay soxlawoo wali settantal wali maanaam ak sàggan ndax marché baag na ñuy dajee yooyu yëpp doo ko toppee mu yàqal la waaye boo tuddee yàlla lu bëri rek yàlla dimbale la yàlla ngay tàggane rijaalun laa tulihim tijaratun wala bayun an zikrillah man de yàlla man yàlla bëgg naa commerçant yoo xam ne lu marché ba jax-jax duñ ko topp ba mu yàqal leen tudd yàlla duñ ko topp ba mu yàqal leen wa iqaami ya taxawal julli yi wa itaayi sakaati yaxaafuuna yawman tataqallabu fiihi alquluub wal absaar lii la yàlla bëgg yaa ngi jaay de waaye bu waxtu way jot rek nga ne ràpp sa cantine bi seet jàkk jëla gën a jege dem julli fa ñëw continuer at jaay yaa ngi jaay de waaye yaa jëloon engagement ci jël doo bu waxtu wa jotee rek da nga téye sa kurusu wirdo bu jël waxtu wasifa wa jotee nga def ko waaye yow su fekkee diina ji ndes rek bala ngaa julli fekk na euh, waxtu wa passé na fu fu foo ko jekkoo rek nga koy mane bala ngaa wirdo fekk passé na waaye sa commerce bi jëralu la dagg wirdo jëralu la julli jëralu la tudd yàlla loola tamit du dara yaa ngi jëndee saaxat laaxiraa ci sa àdduna perte la kon yàlla dafa bëgg commerçant yoo xam ne seen commerce ba du leen yàqal tudd yàlla du leen yàqal julli du leen yàqal joxe asaka du leen yàqal jàng alquran waaye tamit njaay ma eh, eh, loola tamit di tudd yàlla ga ak njaay ak ak ak ak ak julli ya ak joxe asaka ya ak jàng alquran ma du leen yàqal njaay ma ñu fexe ba boole ñaar yëpp kon bëri leen lu ngeen tudd yàlla yéen commerçant yi dee leen jàng alquran téel sa kaamil bi ngay jàng di settantal su client bi ñëwee nuyu nga fay ko xool fi nga toogoon boo waxee moom ba pare nga continuer xaat tegal sa kurus gi di wax laa ilaha illallah wala nga koy wax ci say baaraam del def istigfaar del julli ci yonantu bi sallallahu alayhi wa am nga occasion bu bëree bëri loolu lépp dana la dimbale nga man koo taxawee tabaarakallaahu nam gën a sellee nam gën a rafetee kon nag juróom ñaari jikko yi lañ bëgg ci commerçant bu ne mu jéem koo jikkoo ba ki njëkk mooy dëggu ñaareel ba mooy kóolute euh, ñetteel ba mooy daw lépp luy indi ak ngëñ wan ko gannaaw ab commerce du gëñ ko demee del saraxe ci la yàlla jox waaye na nga fonk joxe asaka ja na nga nekk ku tabe ku jàppandi ci jënd ku jàppandi ci njaay euh, yàlla dafa bëgg commerçant boo xam ne buy jaay dafay jàppandi buy jënd tamit dafay jàppandi waaye dafa am commerçant yoo xam ne kenn mënuñoo jënd mënu jënde ci ñoom waxante yoo xam ne mën naa jël trente trente trente minutes am tamit client yoo xam ne kenn mënu leen a jaay ku leen bala nga bala ngaa am problème dajeeg ñoom fu ne la ñuy dal wàññil ma lii dañ fa nekk wax lu ëpp ñaar fukki minutes jël sa temps bi ku mel noonu yàlla bëggul ko yonent bi nee na rahimallahu rajulan samaan ida baa wa ida stara wa ida qada yàlla bëgg na jaam bu jàppandi ci buy nekk ku jàppandi buy jënd nekk ku jàppandi buy fayee ku bor nekk ku jàppandi buñ koy fay bor mu nekk ku jàppandi jàppandi daal lum dugg rafetal ko waaye gañ-gañalaat forceek kutur kutureek yooyu lum dugg ñaawal ko yëpp jar naa bàyyi xel euh, bu baax a baax a baax a baax kon nag nañ ciy bàyyi xel bu baax yow jaaykat bi nanga nekk ku jàppandi na fexe ba xam lu dagan ak lu araam na nga fexe ba bari looy tudd yàlla yii mooy juróom-ñaari jikko yi nga xam ne commerçant bu nekk bëgg nañ mu fexe ba jikkoo ko yéen commerçant yi may déglu nag euh, comme dee xamagut xamuñ kañ la yi ngi ci xam ba xas téye ko téel mu dëgër foofu la yi ngi ci ñàkk waaye xam na yoo ci xam demal nga wuti ko su yàlla dogalee xamoo ca benn fexeel nga dem wuti ko ndax yi ku leen ñàkk te dangay commerce yaa ngi xaru yaa ngee xaru yaa ngi ci musiba mu rëy rëy rëy waaye boo leen xamee ba pare di leen pratiquer nag su boobaa nag yow yaa ngee yore sa caabi joo xam ne ëllëg mën nga ci hubbi sa aljana waaye bi ci tegu tamit yéen commerçant yi de leen daw lépp luy indi ak riba riba baaxut te mooy dolli da nga dégg yaaram yi di wax ne ndax bu ñu waxee ar riba fi luxati rek mooy la asiyadatu wal intifaa yuqaalu rabal maalu ay zaada wa yuqaalu raba fulaanun ala rabiyati ay maanaam ala wartafaa ilayha ci lañ jëlee rubbootu ji firi tund moo tax alquran wa min ayatihi anaka taral arda xaashiatan fa ida ansalna alayha ma ihtasat wa rabat kon ci la baat boobu jógee ko mooy lépp lu dooleeku rek wala mu funki wala mu préparé ngir sax gàncax yàlla nga koy waxaat ci jeneen aaya wala takunu kallati naqadat gazlaha min baadi quwatin ankaafan tattaxisuuna aymanakum daqalan baynakum an takuna ummatun hiya min ummatin kon arba ja mooy afaala tafdil ja kon jaay baat bi foofu la bàyyeekoo ci luxa waaye nag riba ci fuqaaw yi mooy dolli ci rësu ba ngir yéexe diir ba waa ji yoreel na la fanweeri junne ngeen jëm weer wu dee la cinq la war a fay la cinq jot na manta fay nga ne ko dolliwaat ci vingt cinq mille muy muy deux cent mille wala muy cent soixante quinze mille su ko defee ñu jëm beneen weer wu deewaat wala ñu jëmaat beneen la quinze kooka da dolli kooka dafa xaraam dolli bor ba dolli diir ba wala sax aw ziyaadatu jinsin ala jinsihi fil bay'i li ajalin aw aw li xayri ajalin wenn xeet woo xam ne ñoo bokk xeet wu nangu wut xëppalaante dugub ak dugub ceeb ak ceeb mboq ak mboq nga jël yow jox ma ñaari saakooy mboq pour ma jox la benn saako mboq wala saako genn wall léegi léegi walla ñu dem feeg weer wu dee laa la koy jox yooyu yëpp dafa araam ndax lépp lu bokk xeet xëppalante ci xaraam na wala sax lu bokkul xeet aw ziyaadati jinsin ala xayri jinsihi fil bay'i lil ajal buñ bokkul xeet dagan na xëppalante waaye daganul yéexee dagan na ma jox la ñaari saakoy gerte nga jox ma benn saako ceeb wala nga jox ma benn saako mboq ma jox la ñaari saakoy gerte wala ñaari saakoy bene waaye nag léegi léegi lay doon buñ ko naree dem ëllëg rek wala ca kii rek xaraam na moo tax nga gis ne ca àll ba léegi léegi saree tëb jën ba ñëw ne ah, ah benn kilo dugub ñaari kilo yi jën dagan na waaye nag boo ne ko jox ma jën yi ma dem jëli dugub ji rek xaraam na dugub jaa ngi nii jën yaa ngi nii teg teg gi rek bu ca loolu amul rek amul yeddan bi yeddin kon buñ bokkatul xeer rek xëppalante ga dagan na waaye yéexee ga daganut su fekkee nag bokkuñu xeet xëppalante ga ak yéexe ga yépp xaraam na yaddan bi yaddin mislan bi mislin su xeet ya wuutee nag dagan na xëppalante waaye daganut yéexe kon loolu ci lay ñëw nga ci xaalis euro ba dugg yaa ñëw bëgg a dem siin yore CFA quarante bëgg ku la ko defal euro tooba cay tegu dagan na ca kay wecci waaye nag yadan bi yadin jox ma léegi ma jox la léegi waaye naa la jox jox ma xaalis bi ma dem jox ma CFA bi ma dem ti euro xaraam na déedéet xaraam na lool moo tax yàlla lu mu xaraamal boo ko defee am ci problème ñaata ci ay commerçant sandaga wala fudul sandaga ñoo may déglu wala déglu wuñ ma ñaataa ci joxe seen CFA ñu war leen a utal euro daw ak moom mbaa ñu war leen a utal dollar daw ak moom nga doxee ci ba bis ni ki tey jotuñ ci seen xaalis ba ñaata lañ kenn xamul ni mu toll dañoo def li leen yàlla tere da leen yàlla digaloon bu ñu ko defoon ñu am problème mooy CFA laa bëgg CFA laa am bëgg ko ma ko defal euro wala dollar demal wuti foo mën a amee yaa fekk ma sama place mbaa ma fekk la fi ngeen nekk noona ci seen banc bi ngeen toog ma ñëw nga jox ma ma jox la nga dem ma dem waaye nag am utali ma defal ma nangam waaye ca daw ak sa xaalis bi nga perte ba yowmal xiyaam ngeen dajeeti waaye fi dootoo fi yàppeeti kon nañuy bàyyi li ñu yàllay tere yooyu yëpp nañ ko daw kon loolu ma wax la mooy ribal nañ koy riba goo xam ne li ko tax a mooy hëppalante wax naa la ci tamit riba nasi'a mooy riba goo xam ne li ko tax a mooy yéexe ga hëppalante ga dagan na waaye yéexe gi tabaarakallaahu moo xaraam yooyu yëpp nañ koy daw ci xeeti riba lii mooy xeeti riba yi benn rek muy ribal na wala muy riba nasi'a mënu ko génn yëpp boo ci dàq ci xeeti riba yi rek lii lay doon riba goo xam ne hëppalante tax daganut saakoob dugub saakoob dugub rek saakoob gerte saakoob gerte ñaar téeméeri CFA ñaar téeméeri CFA mu jeex waaye bu ca ëppalante xamee ci jëflante gi xaraam na moo xam ci bor la ak ñu ca xaju yëpp xaraam na buñ bokkut xeet nag dagan nañ xëppalante waaye nag yéexe ga daganut jox ma ma jox la léegi amul ma dem wuti bu ñëwee xaraam na nañ mooy tandiku riba moom nag lekk ko ak jëflante ko dafa bokk ci bàkkaar yi gën a mag bokk ci bàkkaar yoo xam ne dafay gott képp koo xam ne nii yaa ngi koy jëflante ndax riba rek la yàlla rëbb ki koy lekk ki ko koy lekkale ki koy bind tabaarakallaahu rëbbaale seeda yaak rëbbaale euh, lépp lu ca xaju loolu lépp dafa jara daw euh, malaaka yi boole ko di la rëbb mboolem nit ñu baax ñi di la rëbb yooyu yëpp jar naa daw kon nag liy tegtale xaraam ak riba ci alquran ayaat yu bari la li koy tegtale ci hadis xadis yu bëri la bokk na ca aaya yàlla wax ne yamxaqullahu riba wa yurbi kafarin azim yàlla tamit ne wa ahrallahu lbaya wa harama riba yàlla ne yaa ayyuhan taqullaha wa zaru ma baqiya min riba in kuntum muminin fa in lam tafaalu fa'zanu bi harbin min allahi wa rasulihi suratu baqara aaya ñaar téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom-ñett bi ma la njëkk a wax tamit yamxaqullahu riba suratu baqara aayaam ñaar téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom-benn kon gis nga yàlla waxam bëri na waaye takk xareem bëriwut waaye ñii lekk ribaane duñ ko bàyyi yàlla nee na bu ëllëgee danaa geer ak ñoom te maag sama yonantu bi ñooy far yàlla ak yonantu bi kuñ far di geer ak yow waaye waaye yow ku la xam sax du mucc kon nag képp kuy lekk riba bu ëllëgee da nga ak yàlla ñaari yoon rek la yàlla takk la takk gar geer alquran ba alquran jeex benn yoon la ci yàlla takk geer mooy ñi lekk riba moo tax lekk katab riba balaa dee nga yërëm ko dana dana torox la ma xamoon lépp dana ko ñàkk lam dagale woon lépp dana dana dana yàqu mu dee bàyyi fi ay doomam nga yërëm leen démb dee dañ ko dañ koo ñeewoon ci commencement ba waaye ba ngeen dem ak ci ba ngeen arrivé rek fekk na ñoom ñëpp torox nañ doom yëpp nga yërëm leen loolu lépp baaxut ndax eh, lekk googa lekk riba googa muy xalal ju xaraam ja ci la doon alimenté wu di ci alimenté doomam te loolu yonentu nee na bépp xaraam xalal ju xaraam ku cay lekk fa naaru awla bii loolu moo mu gotti ko mooy dal seen kaw te kon baaxul riba nañ ko daw lu bon la yàlla ne koy def naa ger ak yow alquran ba alquran jeex fii rek la yàlla takkee xare mooy lekk riba hadisul benn yoon la ci yàlla takk xare mooy wëliyu yàlla yi ku ko ci bañal benn safara nga jëm moo tax mu ne man aada lii waliyan faqad azantuhu bil harb bul jàpp ci benn sëriñ ne mooy sama sëriñ tax ngay contre beneen sëriñ ab jàmbur di ko wax wax ju bon boo guddee fan àdduna yar la boo gàttee fan bàmmeel yar la kenn mënu ci dara ndax benn wëliyu bu ñëpp ñoo moo tax seexu tiyaan li maqaamaam bi rëy rëy mu ne nga jàpp sama tariqa bi tax ngay bañ beneen wëliyu mënalu ma la dara kenn mënu loolu dara tamit yowmal qiyaam safara nga jëm kon nitu yàlla kenn du ko bañ bu ca tegu Buxaari yooyu wax ak muslim mu bokk ci hadisi abi hurayra ya yonent bi ne ijtanibu sab'al mubiqaat qaalu ya rasulallah wa ma hunna qaala ashirku billah والسحر وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق واكل الربا واكل مال اليتيم وتولى يوم الصحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات yonent bi ne mooy tandiku leen juróom-ñaari bàkkaar yi xalak seeni borom bi ci njëkk mu ne bokkaale yàlla njabar rey bakkan bu yàlla xaraamal ñi rey ko lekk riba lekk xal lu jirim daw bi sa xare xas nit ñu baax jigéen bu sangeewu sàggan lool ci bàkkaar gëm yàlla nga sàkk ko mënoo koo jot rek nga taxaw di ko tuumaal kàddu yu bon léegi nit ñaa ngay tuumaalante ci Facebook yi internet yi whatsapp yi wax ju bon ju nekk nit di koy wax sa morom te xamoo ca moom dara bon rek a tax wala la nga nekk la nekkul rek nga koy bañal Maam Alaaji Maalik wax na ko ca téere bu ñu tuddee kifaayatu raaxibiina mu ne jamono lañ joo xam ne daal nit ñi dañuy lépp loo ne yaa ngi koy jubal ne mooy li baax keneen lam ne nga ne dara nekkul ci lu bon la mooy sax mu ne jikko ya yëfoot ya jikko woon ci jamono ji mooy jikko jullit ñu bari wa qaalatil yahuudu laysati nasaara ala shay wa qaalatil nasaara laysatil yahuudu ala shay loolu lépp nag euh, bon rek a tax moo tax ñu jàpp tariqa tuddee seen bopp salafi ña ngay contre borom tariqa ya borom tariqa ya ña ngay contre ñële borom tariqa yi ci seen biir ña ngay contrante ña ca bokk tariqa ña ca bokk benn tariqa sax ña ngay contrante yooyu yëpp kon bakkan rek moo ko waral waaye yooyu yëpp dara baaxut ci nañ ko daw nañ ko moytu kon euh, riba ku koy jëfandikoo yaa ngi jëfandikoo bàkkaar bu mag yaa ngi jëfandikoo bàkkaar buy gotti boroom yaa ngi jëfandikoo bàkkaar boo xam ne dana la toroxal ci àdduna ba ñëpp yërëm la mu door laa toroxal ëllëg ci àllaaxira yóbbu la safara bu la yàlla jégalut moo tax kon jar naa daw nañ koy bàyyi xel yëpp commerçant bi na koy daw ci jëflanteem ci wàllu riba ak nay daw taxañu ci lépp lu xaraam nga nekk ca li yàlla tere nga nekk ca taxayu ca rek mel ni kañ guddi ba ñoo dara te gis nga riba ak lépp luy lu xaraam xeet yépp la ko yàlla xaraamal liñ ko xaraamale ci xeetu yoon dina ko xaraamee ci nit ña Ibrahima yaa Iisaa ya moo tax mu ne fa bi zulmin lazina haadu xaram naa alayhim tayibatin uhillat lahum wa bi saddihim an sabilillahi kasira wa akhdihim riba wa qad nuhu anhu wa aklihim amwal nas bi batili wa atadna lil kafirina minhum azaban alima kooku ma nga ca suratu nisaa yi aya tabarakallahu téeméer ak maanaam juróom benn fukk ak benn kon nañ ko daw yëpp jar naa daw su ko defee kon nag li tax yàlla xaraamal riba dara waralu ko ba xaraamal ki koy lekk ki ko koy lekkale ak lépp lu ca askaniko ndax riba dafay dafa mën a jëmbat ak nooneel ci nit ñi ndax nit ki su fekkee dafa laa jekkoon ba tax mu jekkale la ci sa alal ji yow tamit bis boo demee ba génn ci lool rek dafay mujj nga soppeeku sab noon boo xam ne dootoo ko bëggati mukk te riba Euh, ku koy jëflante xalal ji dafa mel ni galaas rek man naa formé wu ba nga ne galaas gaa ngi nii mu xëy lépp seey yàqu kenn mënu ci dara kon nañu daw ribal fadri riba boo xam ne dolla la tax mu xaraam nañu daw ribaawu nasi'a yonent bi waxoon na ko ne jaayee leen wurus ci wurus laa ta maanaam laa tabiu zahaba bi zahabi illa mislan bi mislin comme wurus ak wurus la daal yaddan bi yaddin mislan bi mislin wala tusifu baadaha ala baadin wala tabiu lwaraqa bilwaraqi ila mislan bi mislin wala tasufu baadaha ala baadin wala tabiu minha gaiban bi naajisin bu leen jaayee lu fàddu ci lu teew illa yadan bi yadin xam na ci riwaaya bu ne ila wasnan bi wasnin mislan bi mislin loolu buxaari yu ak muslim yëpp andi nañ hadis bi kon lii lépp dafay xaraamal ribal fadli lépp loo xam ne moo bokk xeet bu ca kenn xëppalante ci dara riba nasiha tamit hadis yi ñëw di ko tere bëri na riba boo xam ne yéex ga rekk moo ko taxaaraam dafa daan am ci jamonoy jaahiliya yi ñu ko daan jëflante yooyu yëpp dañ ko war a daw euh, su ko defee kon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam maa ngi koy wax dafa fekkoon gaa yi di leb ci madinatul munawara mu ne nag kuy leb na leb luñ xam buy fay mu fay kem lam leboon te nañ ko ko nattalee woon wala nañ ko ko peesalee moo tax yonent bi leboon na ci génn góor euh, tabaarakallaahu benn gëléem mu dikkal ko gëléemu sarax ya ñëw mu digal ma man mii mooy ko solo hadis bi di abu rafia ne naa dem ma fayal ko borom gëléemam booba mu leboon ba ma demee fekkuma ca gëléem ya lu dul gëléem yoo xam ne dafa rafet nekk tànneef lool yonentu bi ne ma jox ko ko rek gëlëm la ma lebaloon gëlëm laa koy fay rek su ma ko fayee nag bu gën a suur ak bu gën a rafet xalaa kulli xaal fayin wu rafet rek la moo tax mu ne ko i'tihi fa inna xiyaarukum ahsanukum qadaan ki gën ci yéen mooy ki gën a rafet mu muy kon ñi fayoon li ñi lebaloon la dugub ju ñaaw ci fukki bërigo nga fay fukki bërigo yu rafet fekk waaje sartaawu leen ko dugub faada dara nekku ci fayin wu rafet la aw fas mën naa am wu làppoon la nga soxla ko ci nawet bi dem ba ngooñ am nga am fas bu baax yafal ko jox ko dugub ñëw fayee ko ko ko fayin wu rafet la donte wii moo gën a suur moo gën a nekk ndaw lépp comme fas la fas la rek jeex na loolu lépp ci mbaax la ku ko def tamit yàlla dana la fay xam naa boo ma toppee suba ci wax waxtu yi wax naa ak yow njaay ak li ci xaju wax naa yow ak riba niñ ko waree teet danaa wax ak yow li mu tuddee mudaaraba mudaaraba nag bëri na ci commerce yi mooy lu ñuy tuddee xiraat mooy yow mi may déglu yaa am say surga ci dëkk bi bëgg leen a ubbil magasin wala nga ubbil leen bitik bu ko defee buñ demee ba juróom benn weer wala fukki fukki weer ak ñaar ngeen réglé def inventaire ngeen génnee yaxu xaalis ba teg ko fële du ko defee bénéfice ba nag bu leen neexee def ko ñetti xaaj yi lu ngeen juboo rek fekkee da juboo ci ñetti xaaj magasin bi xaaju boppam yow mi moom alal ci sa xaaja bopp ah su ko defee tamit moom ma ci doon liggéey xaaja boppam ah, danaa la ko wax suba li ci lislaam nangu lu ci bëri nu ñu koy defee daganut ubbil ki cantine def ko yére ba pare jox ko ko ngeen ngeen def xiraat ngeen rek la déedéet xiraat ni muy mën a amee da koy jox xaalis bi ba pare mu téye su fekkee dafa ne nangam laa bëgg jënd nag mën nga koo orienté ci jàppale ko mu jënd loola buy sarfe nag fekk yow wutal booy wut magasin fekk wut nga ko ngeen ngeen door a jël bagage def ca waaye jox ko moom ci boppam nga jënd bagage ba pare door koo jox mu nekk fa di jaay ajiir la war a doon ajiir mooy baajoo weer wu dee rek nga fay ko bu dem nga dem lii la lislaam bëgg bu weer dee te jaayul benn morso da nga ko war a fay bu weer dee woon mu jaay cantine ba yëpp wala mu jaay fukki fan ak juróom te la ko sarte loolu lépp fukki fan ak juróom dong nga ko fay fay lii kon fokk ñu xàmmee mudaarabatu fokk ñu xàmmee ijaaratu boo ma toppee suba danaa jëw ak yow ci wét na fokk ñu xàmmee sharikatu mooy bokk def associé di liggéey nga yëkkati téeméer gi ne ma yëkkati téeméer bi ni ñi ñi ñi boole su ñaari xaalis bi dem siin walla ñu dem defi nangam di liggéey moo xam wala ñu boole suñ jëmm yi amuñ xaalis ma maag yow ñoo bokk nekk maçon foo xëy ma xëy fa luñ fayeeku ñu bokk fayeeku ko euh, loolu lépp naa la ci wax suba insha allahu ci diggante mudaarabatu naa la wax ci diggante ijaaratu naa la wax sarikatu muy bokk associé di liggéey boole xalal naa la wax tayale li ñu tuddee rëhnu yooyu yëpp moo ma toppee suba ci waxtu wi bu ci xaj rek ñu dugal ko ci wa axiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin wa salaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu wa sallallahu wa sallama ala nabii rahma wa kaashifi lgumma wa shafii l umma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 bu ngeen mun di nekk ci àdduna bi rek maa ngi leen di booleet ci juróomi baat yi ñu yàlla boole muy asalaamualeykum wa rahmatulahi wa barakaatu. di del siwaat ci kartanal yàlla di sof ak yow li ma sosoon ak yow démb maa ngi teqalikoo nag yow ci riba ak ni mënee yàq alal ni mu mënee gotti nit ki ni mu mënee demee barke ci alal gi ci jëmm ji ci palaas bi da ci njaboot gi ko doon dundee ma dëxaloon la nag na su ma ñëwaatee danaa ñëw ak yow sof ca ci lu tuddee mu daara batu mu daara nag mooy sa danañ koy wax muraabaxatu danañ koy wax kiraab benn jëflante la bu bari ay tur doonte ay façon am lu bëree bari la waaye su ma la ko doon jegeel daal mooy kii dafa am xaalis kii amul xaalis waaye mën naa liggéey ci xaalis ba lu koy yokk ñi boole ñoom ñaar ñi associé kii joxe alal ci joxe xelaat wala xam-xam wala kartan buy tax alal ja yokk yor naa deux millions jox la ko yow yaay choisir marchandise mooy jënd du ma la wax ne lii rek nga war a jënd duma la wax ne lii rek nga war a jaay man daal dama laa jox xaalis ba tinci la ne la demal nga yaxantu ci noo mën a def ba di ji yokku rek moo ma ñor ma ko fi bàyyee asaka lekk ko ndaxaan mu jot dañ ca génnee fukki junne fekk man na ñaari million su boobaa kon million bu ne juróomi junni bu déwénee nga génnee at bu yàggee rek luy wàññeeku te yokkuwut ci jeex rek la jëm kon nag alal jaa ngi nii di sa tànk yow man ngaa dox waaye amoo tànk kaay ma jox la nag tànk yow doxee muy ñaari millions yi demal boo liggéeyee six mois wala nga liggéey douze mois nga toog ma toog ñi génnee xaalis ba teg ko fële muy ñaari million yi la nga ca yokk lépp ci bénéfice muy yeneen ñaari million mbaa un million cinq cent ngeen wax nu ngeen ca jubóoyee balaa dem nag nga ne ko boo ñëwee lépp lu tegu ci ñaari millions yi ci bénéfice dañ koy xaaj ñetti xaaj man ma jël ñaar ya man mu moom xaalis bi yow nga jël benn ba wala yow nga jël ñaar ya man ma jël benn ba wala ñi xaaj ko ci digg bi man ma jël benn yow nga jël benn wala ñu xaaj ko ci digg bi fa nga doon liggéeyee xaalis ba comme dafa laaj fi nga doon fayee benn ba fa nga koo doon magasin ba moom ko benn bi man benn bi yow lu ngeen jubóowee rek lislaam nangu na ko su ngeen diggee su ngeen jubóowoo ca digg ba lislaam nangu na su ngeen jubóowee ki ñetteelu xaaj ba lislaam nangu na su ngeen su ngeen jubóowoo ki ngeentee lu xaaj ba tabaarakallaahu muy kaar ba lislaam tamit nangu na lu ngeen ko juboo rek lislaam nangu na ko su ko defee xaalis ba nag ma nga noonu ci sa loxo bu yàqoo doo ca warlu dara yéen ñaar ñëppay bokk perte su ngeen gañee yéen ñaar ñëppay bokk bénéfice soo cay liggéey di ca yaxantu ba at ma jot fukki weer ak ñaar la xaalis ba lépp la bokk génnee ko asaka suñ ko génnee ba pare la ca des nag ñu ma génnee sama rësu maal la ca des nag ca bénéfice ba ñu door ko séddoo moo xam lañ ca juboo woon rek ca digg ba mbaa ñetteelu xaaj ba mbaa ñeenteelu xaaj ba lii la tuddee muraabaxatu lii lañuy tuddee tamit mu daarabatu tuddee nañ ko muraabaxatu lu tax ndax kenn ku ci nekk dafa bénéfice wu ci moromam maa ngi yaa ngi nii bénéfice nga ci jël alal ji def ko muy sa tànk man tamit bénéfice wu naa ci yow ci yokk gi ko yokk kon xam naa lu ma la dimbalee mais yow tamit am nga loo ma dimbalee bu fi xaalis bi nekkoon lam toll rek mu dolli ko amul benn njariñ moo tax ñu tuddee ko muraabax danañ koy tuddee xiraab soo jëlee baatab xiraab tabaarakallaahu mi ngi bàyyi ko ci baatab xardu xardu ci lu mooy tekk alxatoo ji firi dog ndax da kenn ku ne dag nga ci sa mbir sa sa borom sa morom dara borom alal jile dog na ab xaaj ñeel moromam mooy jël na ab xaaj ci àllam jox ko waa ji waa ji di moromam dagg na ab xaaj ci waxtoom ba muy dem di ca sonn di ca liggéey pour alal ji mën a yokk loolu tax ñu tuddee ko xiraat boo gisee tamit ñu tuddee ko tabaarakallaahu mu daara batu ndax fas la goo xam ne ñaari pet pet la xam ñaari ñaari maanaam eh, koñ wala ñaari pet su ko defee kenn ku ci nekk ci yéen jàpp nga ca benn pet ba yow yaa jàpp ci xalal ji kii jàpp ca bénéfice ba xalal jay jur jox naa la alal di xaar bénéfice ba mu war a mën a jur su boobaa nag bu bénéfice amee yéen a koy bokk bu perte amee ci seen kaw lay dal yéen ñëpp lii mooy mu daara batu lii tabaarakallaahu mooy xiraat lii mooy mooy muraabaxatu bari na fii suñ commerçant yi ñu koy def waaye niñ koy defee day bëri lu ca manqué dinaa la ko wax lii nag liggéey bu fi yàgg la jox alal nga dem liggéey teewal ko six mois wala juróom wala fukki weer ak ñaar ñu teg bopp alal ja seddoo bénéfice ba lu fi yàgg la yenoon bi bi muy ñëw fi la ko fekk Ah, arab yi dañ ko doon liggéeyee njëkk lislaam di ñëw moo tax yonent bi avant ñu ko yónni da ko doon liggéeyee bul fàtte ne sayyidatuna Xadijatu borom alal la xoon da ko joxoon alalam yonent ba nekk di ca liggéey dafa Xadijatu xiraat ah, bu demee tabaarakallaahu juróom benn weer wala fukki weer ak ñaar yonent bi ñëw teewal alal ja su ko defee bénéfice ba ñoom ñaar ñu séddoo ko gannaaw bi mu teewalee bopp alal ja ba pare loolu ci la doon yonent bi di liggéey ak sayyidatuna Xadijatu boo demee nag ci ku mel ni imaamu Sawkaani naylul awtaar wala nga dem ci ibnu hasmin dañuy wax ne mbooleem jëflante yi ñuy jëflante ci wàllu fiq am na buntu boo jëlee sharikatu am na aayaat yu koy tegtale ak i hadis boo jëlee bunta bu rëx nu muy tayle am na ay hadis yu koy tegtale ak yaaya boo jëlee wasiyatu muy ndénkaane am na aaya yu koy tegtale ci hadis boo jëlee aariyatu ji firi habbu am na yu koy tegtale ji firi dénkaane xam na ay aaya ak i hadis waaye ñu ne aaya alquran buy tegtale qiraat wala hadis bu koy tegtale amut dañ ne benn hadis rek lañ ci xam bu koy tegtale te hadis ba daif la wérut mooy hadis biñ ne yonantoone inna fiha baraka moom qiraat wala mu muraabaxa wala mu daara ba barke nga ca loolu hadis bi wérut ñu lii rek lañ ci gis waaye ala kulli haal jëf nañ ko ci kanam yonantu bi saxaaba yi def ko mu saxal ko njëkk ñu koy yónni daana ko def gaa yi di ko def gannaaw bañ ko yónnee tamit saxaaba yu bari def nañ ko moom mu saxal leen ca kon saxal gi mu leen ca saxal day tekki ni sunna la bu amul sunnatul xawliya am na sunnatul taqririya saxal ga rek sunna boppam la moo waral mu continuer nekk luy am di continuer ba yonent bi génn àdduna Aboubacar ñëw weddiwut ko saaba yi di ko def Omar ibnu Xataab ñëw bim ñëwee nag moom acte bi dafa mujj dal ci kawam nu mu dalee ci kawam dafa amoon benn gouverneur bu ñuy tuddee Abu Muusa al Ashari yu Seyduna Omar sampoon ko fële ca Basra mu nekkal fa lislaam yàlla nag dogal ñaari doomi Omar ya dem fa ànd ak soldaar yi muy doomam bu ñu tuddee Abdullahi ak beneen doomam bu ñu tuddee Ubaydillahi ñaari doom yi ñoo demoon ànd ak soldaar ya armée ba dem ba Basra bañ demee jaraaf ji nekkal fa lislaam nekkal fa Omar di abu musa al ashari yu teral leen dalal leen ba ñu demee bay bëgg a ñibbi mu ne yéen de su ma amoon lu ma leen mën a defal ci luy tax seen xol sedd danaa ko def ah waaye seet naa ko seet awma lu dul alal li jullit ñee fi ne joo xam ne seen bàyyee ko moom moom lañ koy jox am na alal ju fi nekk benn som seen bàyyi lañ ko war a jox ci départ ci pour nga mën a dégg daal alal ji mën na cinq millions mi ngi nii seen bàyyee ko moom waaye bëgg naa ngeen am ci dara lu tax dafa bëgg a neexal ñaari doomi Omar yi pour mën a jot seen baay te bu ëllëgee bu safaan amoon Omar mii lu mën a rëqandi gëm bu doon ñeneen ñi ci njiite yi xam nga léeg-léeg nit ki bëgg lu neex kilifa gi mu jaaree ko ci doomam mbaa mu jaaree ko ci gorom mbaa mu jaaree ko ci ku ko jege ñu jaaree ca loola di yàq rek mais la nangu wut mu jël juróomi million yi ne leen seen bàyyi ko moom mais bëgg naa ngeen am ca dara dama bëgg fii ngeen jënd ci marchandise ci juróomi millions yi yëpp su ngeen demee mu na war a ngeen jaay marchandise ma bu ngeen ko jaayee ba pare jël juróomi millions yi bopp alal ga jox ko seen baay bénéfice bu ci tegu lu mën a doon ñaari million la ñett la ñeent la ngeen seddoo ko yéen ñaar maa leen ko defal su ma amoon sama poos yaatu lu ma leen mën a defal naa leen defal lu wuteeg loolu mais lii laa xam tey man leen ko dimbalee ñi jël juróomi millions ya jënd ko marchandise ca Basra ñëw ma dinatul a war a jaay ko bénéfice bu bëri dolleeku ca ah Abdoulaye ak Ubaydillahi ñi ñaari doomi Omar ya ñëw ak bénéfice ba di jël alal ja di ko jox seen bàyyi ne ko juróomi million la ñu abul Moussa Ashari yu joxoon ñu jënd ko marchandise dafa ñu ko lebaloon ah, buñ ko indee nag jaay nañ ko marchandise ma ah juróomi million yaa ngi nii ñeenti million moo ci tegu ci bénéfice ñun ñaar ñii ñoo koy séddoo xamar ko maandu la mu ne waaw bam leen defalee yéen ñaar lii ndax defal na ko yeneen soldaar yi ma jurut ñu ne ko déedéet ñu ñaar rek la ko defal mu ne ah li ngeen nekk di ñaari doomi buur bee tax mu bëgg a jot seen xol pour mën a jotaale xolu seen baay moo tax mu defal leen ko bàyyi fa ñeneen ñi nga xam ne seen baay dugut buur fu mu ko teg mais andi leen bénéfice bi ak alal ji lépp ma def ko ci banque jullit ñi jullit ñi bokk ko ah ba mu waxee loola Abdoulaye mii mag noppi ndax mag foo ko fekk ñaareel day xormaal baayam dafa koy wekk moo koy gën a respecté ndax yarab baayam dafa fekk mu pare ca moom waaye foo fekk dëngee gi gën a bëri rek ca doom yi ndaw la ñuy doon day fekk ba du paree gum dañuy ñemee seen baay ba ñuy màgg day fekk seen baay sippi na amatul doole daanaka rek bu leen yar ci wax ci wax lay doon waaye mag mi nga xam ne dafa ñoo fekk seen baay xam kartan bu dëngee mu summi dara jëf door ko ba muy bëgg dee foo ko fekk mag ña dañuy ragal seen baay dañ dem ba ñaari jabar ragal seen baay cinq millions yeeg seen quatre millions yi bénéfice bi lépp laay dugal ci alal li jullit ñi ah Abdoulaye noppi tegu ca benn baat Obaydoulaye mii di xare moo gën a ñeme baayam ne ko ah waaw yow suma baay dama lay laaj alal ji mu jox ñu ñi garante ko jënd ko marchandise ndax bu yàqoon dugul ni ñun ñoo koy fay mu ne ko waaw yéen a koy fay de mbaa mu def ko seen digg mu ne kon nag comme ñun bu yàqu woon ñun ñoo koy fay yàlla dogal yàquwut am lu ko juddoo nga bëgg koo xeeñ Omar noppi ku maandu la mu gàtt benn saaba ca ña fa toogoon ne ko te nga def ak ñoom xiraat te mooy jëlal sa yaxu alal bi ba pare muy cinq millions yi quatre millions ya ca tegu ci bénéfice nga xaaj ko ci digg bi jël deux millions ya dolli ko ca yaa ko moom ndax sa xaalis a ko liggéey deux millions ya ca des nag nga séddale leen ko ñoom seen coonoo ko liggéey Omar nangu def ak ñoom xiraat boo xam ne genn wàll la mooy bénéfice ba lañ xaaj ca digg ba Omar jël genn wàll ga ñu jël genn wàll ga kon xiraat bu amul aayab alquran amul amul hadis waaye def nañ ko ci kanam yonent bi ci saxaaba yi mu saxal ko bi mu fi bàyyeekoo Aboubacar saxaaba yam yam jiite woon ñu ngi koy def mu saxal ko Omar ibnu Xataab par xàtte bi ñëw dal ci kawam waxut dara loolu la mu ngi jëflante ak ñoom kon xiraat dagan nag yàlla daganal ko ci nosee pas gi mooy jàppandal nit ñi rek tinki leen bañ leen a tënk sàmm seen maslaha ndax nit léeg-léeg mu am xalal waaye moom lottu na ci yaxantu luy yokk xalal ja yaa ngi am ay million sa njaboot màggagut wala tey nit ki dafa dee bàyyee njabootam gu màggagut xalal ñi donn ko foofa buñ ko fa bàyyee asaka lekk ko day laaj ku jub ku ragal yàlla ku xam marché bi ku mën a liggéey dem liggéey ca alal ja man caa am dara ñii nga xam ne màgg guñ ba mën na liggéey man caa am dara ñoom tiit waaye nañ jub de buy jamono ji ñu bëri boo leen ko defee ñu tiriyan lekk alal ja dem takk ca séet baa ngi tabax ca kër maa ngi jënd ca oto kon looloo tax lislaam daganal ko tinki nit ñi bañ leen a tënk sàmm seen maslaa mu nekk njariñ ci ki nga xam ne am na alal waaye mënu koo yokk mu nekk njariñ tamit ci ki mën a yokk alal te xamut alal ñoom ñaar ñi bokk associé kii xabal la tànk am nga tànk waaye mënoo dox wala yaa ngi nii bëgg ngaa dox waaye amoo tànk maa xabal la tànk yoo doxee su ko defee nag boo ñëwee rek mu nekk di jariñ waaye balaa mën a wér nag dëgg lu ma wax la sarta ya balaa xiraat mën a wér faaw ñetti sarta yi moo cay dëppoo bu ca manqué mu yàqu sarta bu njëkk ba dañoo war a teewal bopp alal ja bopp alal ja warta nekk marchandise xaalis la war a doon duñ xam ñun nag suñ gaa yi dañuy defee xiraat ci marché Sandaga yéen a may déglu marché joor tabaarakallaahu marché Njaareem marse Kaolack ak yeneen yi ci aju yi ci xëpp ca xiraat ba dangay am sa surga muy sa rakk wala muy sa mbokk walla muy sa goro wala koo xam rek wóolu ko ci jikko xubbil ko magasin yow yaa jënd marchandise ma dem siin ñëw sol ko ba mu fees nga rek léegi moom xam ne nangam la su ko defee bàyyi ko fa muy jaay bu demee ba mu am juróom benn weer ngeen réglé la jël sa bopp alal jël bénéfice ba ngeen seddoo ko la ca la ca gën a yaatu tama xam ko ñetti xaaj lay doon benn bi magasin bi benn bi yow benn bi moom fi ngeen yàqulee mooy da ngeen waroo ko a jox marchandise xaalis nga ko waroon a jox xaalis la waroon doon buñ xam muy vingt million ngi nii wala dix millions yi ngi nii yow nag ndax man nga cee liggéey mu ne waaw looy liggéey pour mu yokk nag yaa xam mu ne man dugub lay jaay nga ne comme dal na sa demal maa ngi dem jëndi ko dugub wala maa ngi dem jëndi ko gerte wala maa ngi dem jëndi ko ay morso maa ngi dem jëndi dàll maa ngi dem jëndi téléphone maa ngi dem jënd jaay ay télévision nga ne ko daal na la wóor na juróom benn weer mooy suñu rendez bu juróom benn weer jotee daal ci kàttanal yàlla da teg deux millions yi ma la jox wala dix millions yi su ko defee bénéfice ba ca tegu nga ne lii la ñu séddoo ko la ngeen juboo yéen xam bu ne dañ koy séddoo ci digg bi man genn wàll yow genn wàll lislaam d'accord na boo ne ñetti xaaj yow ñaar moom benn lislaam naa d'accord na boo ne ñeenti xaaj yow benn moom ñett ya wala yow ñett ya moom benn ba comme d'accord na ko lislaam d'accord na al muslimuuna ala shurutihim la yonent bi wax kon loolu mooy mooy kon première an yakoona an yakoona ra'su maali naqdan darahima aw dananira fa in kaana tibran aw aw aw aw xilyan aw arudan la tasixu su fekkee bopp alal gi dañoo ba war a nekk xaalis di ay ay dinaar wala muy muy ay dollar wala muy xaalis waaye bu nekkee wurus wi wala mu nekk ay takkaay wala mu nekk mat yi ay morceau wala ay télévision kalaat ga wérut yàqu na laa tafiu li anna haadihi ashyaa siraun tubaaxu wa yutajaru fiha wa laysat asmaanan yustara moo tax kon foo yustara biha kon foofu la mbir mi yàqoo soo xasee def magasin rek ba sarse ba mu nekk bagage ngay jël nit di ca dugal bu ko tuddee xiraat tuddee ko moom mu nekk ijaaratu buntab ijaara lay mën a doon jaayal ma ma fay la bu la neexee nga ne ko weer wu dee ma fay la cent mille franc bu weer wi dee woon jaayut benn morceau da nga ko fay cent mille franc yi su yàlla dogaloon fukki fan la fa xam jaay magasin bi yëpp fukki fan dong nga koy fay cent mille ngeen juboo woon moom nga jël nga diviser ko ñetti xaaj fukki fan ya nga jox ko ko ya ca des nga dugal ko sa poosal lam jaay lépp boo ba fay xem xem na bu ngeen continuer dina xam lii mooy ijaara mooy kuñ jox bagage kuñ jox bagage moom lii rek la mën a doon bu la neexee nga ne ko bagage yaa nga demal bu ngeen demee ba juróom benn weer nga ñëw dinaa la fay nangam loolu lañ xam waaye boo bëggee def nag lii xiraat wala murabaha wala mudaaraba yaxu xaalis nga koy jox moom lu mu mën a jënd moo xam su ko defee juróom benn weer ngeen réglé nga jël sa yaxab xaalis ngeen seddoo seen bénéfice waaye boo ko joxee marchandise tuddee ko euh, loolu mu daara murabaha daganu mënta kon ñu bari fii la yàqoo ñaareel bi tamit xaalis bi nga koy jox bu mu nekk bor bu gàddu woon ci loosam ba pare ameloon na la vingt millions xam naa ne nga caa mënta jot rek nga ne ko damaa bëgg ñu def ko xiraat maag yow jëlal vingt million yooya nga dem jaayi ci loo mën a jënd yaa xam boo toogee feeg six mois wala douze mois ñu réglé nga teg sama vingt millions fii su ko defee la ca tegu ci bénéfice ñu séddale ko daganut daga noon na nag nga fayee ko ko vingt millions yi ba pare mu tegu sa loxo ba pare nga joxaat ko ko ne ko demal nga def kaa ñu defi xiraam demal nga seet loo mën a jaay bu déwénee wala ñu ñu dajee euh, def inventaire lii lay mën a doon waaye bor bu nekk ci moom loo sam fayagul la ko nga ne ko nañ ko def xiraat daganut yow da ko war a fayee ko ba téye ko door ko ko joxaat ñetteel ba timit mooy bonofice ba na nekk luñ xam ci diggante kii jaay ak borom xaalis mooy que say liggéey ak borom xaalis ba nañ ko xam ne genn wàll ak bénéfice lañ juboo wala ñetteelu xaaj ba lañ juboo wala ñeenteelu xaaj ba lañ juboo nañ ca d'accord xam ne tamit bu pertement amee ñoom ñëpp lay gàccoo xamul nga ne ko sa wàll wi moo perte dama la koy tiire daganut pertement bi ci seen kaw lay dal su fekkee bénéfice am na tamit ci seen kaw lay dal daganut tamit nga xoo ko ne ko damaa bëgg xaalis bi buñ ko defee maanaam vingt millions yi yow nga jël cinq millions yi di ko di ko jëndee marchandise am nangam bénéfice booba cinq millions yi génnee man kenn ko moom quinze millions yi bénéfice ba muy génnee mu door koo séddoo daganut am na ñu koy def waaye yor daganut yëpp lañ war a boole rek moom mu dem xam la muy mën a dugg bu ko defee ala kulli mu dem jaayi ko ca lu ca génnee ngeen mën a bénéfice lenn nag mën naa am jox ko xaalis ba pare mu téye nga ne ko sa xel lum daj pour war koo jënd pour liggéey ko mu ne morsa laa bëgg nga ne ko nañ dem ma wutali la ko mën naa ko wuti siid wala mën naa ko wuti fii sarfeel la ko benn bu ne nga ne ko yaa ngi nii xam nga lii lii lay jar lii lañ ko jëndee dañ xam lépp nag kon yow da nga koo dimbale rek bu fekk tamit magasin baa nga fa wala nga wutal ko ko moom mu dugal ca bagage yow da nga ko jënd rek jox ko ko waaye dem nag jëndil sa bopp ba pare war a ñëw nag taal dugal ko ca biir magasin ba juróom-benn weer ñaan rek la bénéfice wala fukki weer nga jël mu jël yaxu xaalis ba nga ne leela euh, loolu yaxu xaalis ba du génn mukk ñaareel daf fay des rek daf fay des rek lay doon toujours du mën a génn mukk moo tax xiraat kon yaxu xaalis dafa war a génn ñu ne mi ngi nii ana li ma la jaay loon ñaari millions yi nga ne duggoon naa di baana baanaa ka yéeg a ka wàcc moom daal sa ñaari millions yaa ngi nii ana bénéfice ba nga ne mi ngi nii euh, un million cinq cent la ngeen door koo séddoo waaye bu ngeen duggee ci dugal màng magasin nii ba ba yowmal qiyaam euh, bopp alal ba du génn marchandise rek nga la mën a doon ah moom kay dagg ba ma koy sarfil machine yi vingt millions laa ko doxal xool naa ne léegi macha allah dox na vingt six millions moo fa nekk kon jàpp naa ne ah, six millions yi mooy bénéfice vingt millions yooyu boobu ba tey ma nga fa loolu du du waxi dara ba tey du génn bu déwénee ba ngeen defaatee tamit nga xool mu yéeg wala mu wàcc rek nga ne ah la fa nekkoon ca yax ba ma nga fa la ca teguwaat lii la mbaa dañoo perte buñ ko xoolee loolu rek lay mën a doon ba yomal xëyam xaalis du taxaw waaye da nga war a yëkkati xaalis ba jox ko ko lu muy jëndi moo xam bu six mois jotee mbaa douze mois nga ne ko ñëwal ñu teew mu nii loolu nag ku jub lañ ko mën a defat de jamono ji ñu jubat dafa bëri wax naa la ko sànq ku bëri boo ko joxee vingt millions yooya wala dix millions yooya mu dem takkee di ko jabar mbaa mu dem tabax ci seen kër wala mu nax sax dem seet ku ko mën a yóbbu bitim du dootoo ko mën a jotati yow sa xaalis yàqu kon boo demee ba koy def daal ci joxam joxe xaalis la ko lislaam bëggee ci buntab xiraat booba joxe lu xem rek Euh, su ko defee bu déwénee bu yàlla dogalee nga gis ne yokkute am na nga yokkaat tuuti rek waaye jamono ji boo ko defee tamit day dem ba mu bëri mu nax la ndax jamono ji da nga toll jamono joo xam ne ko ki nga xóolu yaakaar ko rek moo lay nax waaye ki nga xóolu wut tabaarakallaahu du ngeen jëflante ba mu lay nax rek noonu jamono jee yàqu waaye ala kulli haal daal képp ku bëgg a dugg ci buntab muraabaxa mbaa nga bëgg a dugg ci buntab mudaaraba wala nga bëgg a dugg ci buntab xiraat ñetti sart yi mooy man a dajee bu ca manqué du mën a am teewal su maal ba te mu nekk xaalis ñi xam ne lii la moom lu muy jëndi moo xam ñaareel ba su maal boobu nga ko jox xaalis bu nekk bor bu nekkoon ci loosam ba pare nga bëgg ko koo tiire ni ci lay war a liggéey bu déwee ne moom di bénéfice ba daganut mën nga koo fayee ko ba pare joxaat ko ko ne ko demal defi xiraat euh, su ko defee euh, ba euh, la nga cay xam moom tamit mu xam lam cay xam bénéfice bu ñëwee yaa moom ñetteel bi wala yaa moom ñaareel bi wala yaa moom genn wàll ga man maa moom lii ngeen juboo ca ba dëppoo ca lislaam dana ko nangu bu dul loolu nag ñett yi bu ci dàqu rek xiraat ba yàqu na kon loolu la moom la yonantu bi defoon ak xal alali sayyidatuna Xadija Xadijatu jox na ko jox na ko yaxab xaalis yonantu bi dem di commerce ji lu ca ruusee rek tabaarakallaahu mu jox ko yaxu xaalisam ba pare jël bénéfice bi ñoom ñaar ñu séddoo ko moom la Omar defoo nag ñaari doomam ya indi nañ juróom millions yi ba pare 4 millions di bénéfice ñu ñaari million yi jox ko Omar ñoom ñaar dem séddoo ñaari millions ya lii mooy xiraat moom la tuddee murabaha moom lañuy ñu tuddee mudaraba bi ci tegu danaa la wax lu ñu tuddee asharikatu mooy bokk alal di liggéey moom nag lu yaatu la bokk alal man naa ne bokk jëmm jëmm ya bokk di liggéey man naa ne waaye sharikatu daal ci luxa mooy tekki rek al ixtilaatu mooy jaxase xalal yiñ ñu jaxase la moom ahnaaf di xanafi yu ne ñu ne mooy pas-pas boo xam ne fa dox ci ñaar ñu ko bokk ca bopp alal ji ak ca bénéfice ba maag yow daal dem nga indi somme un million mu indi soma un million ñu boole ko ubbi place di jaay wala ñu ubbi ay machine nekk ay tailleur di ñaw euh, su ko defee lu ci bu déwénee ñi ñi ñi ñi réglé lépp lu ca yokk muy euh, lu ci ca yokkuwaat muy muy un million ah jëlal cinq cent mille ma jël cinq cent mille ñu seddoo ca bénéfice ba comme ñoo xema woon luñ joxe waaye su fekkee nag maa joxe woon un million cinq cent yow nga joxe un million rek te ñoo bokk lu ñuy def ca liggéey ba suñ demee bay réglé man mi joxe woon un million cinq cent maa lay ëppale yow mi joxe un million na ma la ëppalee ca xaalis noonu la lay ëppale ca bénéfice ba bu bénéfice bi ñëwee nekk un million dañ koy partagé ñetti xaaj man ma jël ñaar ña yow nga jël benn ba ndax loolu laa la ëppalee woon kooku mooy sharika fekk na nag ñoo bokk luñ joxe te ñoo bokk lu de def koy liggéey boo xëyee ma xëy boo wàccee ma wàcc boo gontee ma gont te man maa la ëppale luñ joxe kon tamit maa lay ëppale lu may encaissé ca bénéfice ba moom nag mën naa am tamit moom sarikatu ciy maa ngi yow kenn joxewul dara dañoo jël nekk ñaari mbënise ñu dem di xari bant ak di ko séex ak ya ca xaju boo xëyee ma xëy bu ngoon jotee ma boo gontee ma gont bu weer dee ñu boolee fay ñu comme ñoo bokk lu ñuy def ñoo boole suñu alal yi kon dañoo war a maag yow ñooy xam képp ci bénéfice ba wala ñu dañoo bokk nekk ay tailleur maag yow ñi bokk dem ci ku ñu am embauché boole ñu ñun ñaar ñu bokkuy liggéey weer wu dee mu ne naa leen jox cinq cent mille cinq cent mille yooya noona maag yow bokk lu ñuy def kon ala kulli haal ñoo koy bokk fayeeku kon dootul xaalis buñ génnee mais jëmm ya lañ joxe jëmm ya bokk di liggéey kon bu weer dee tamit lu ca génnee ñoom ñooña ñoo koy bokk kon euh, associé ci xaalis mën naa am associé tamit ci jëmm mën naa am yooyu yëpp mën naa ni associé sax mën naa am ci nga nekk actionnaire ci dara da ngaa jékki-jékki rek joxe nekk actionnaire ci benn banque walla ci benn société sa alal nga ca joxe weer wu dee wala at mu jot bu buñ defee le ñu ne yow kat am nga ci lii loolu ci masala yu bees yi la waaye loolu dagan na moom nag bokk euh, bokkoo liggéey di bokkaale ga alquran wax na ko yàllaa ngi wax ne wa in kaana rajulun yurusu kalaalatan aw imraatun wa lahu axun aw uxtun fa li kulli waahidin minhumaa sudusu fu mu ko waxee mu ne fa in kaanu aksara min zalika fa hum sulusi dafa bëgg wax nit ki bu dee bàyyi benn doomu ndey kese ki mu bàyyi mbokk la ci wàllu ndey kese maag yow daal ndey rek lañ bokk bokkuñ bàyyi foo ko fekk na sant yi dañuy wutee ku muy dal maanaam ku yaayam sëy ay yoon ñi sant Jóob ñi sant Njaay ñi sant Jaxumpa kenn ca ñoom génn àdduna su boobaa nag ñam bokk ak yaay ñu ñëw di ko doon te bokkuñu baay su fekkee kenn rek la su sudus lay doon mooy juróom benn li xaaju alal ba su fekkee mën na ñaar jëm kaw góor lañ jigéen lañ dañ leen di boole sudus ba sudus booba nag bu ñu koy séddoo góor ñaar jigéen benn amut fa ñëpp a cay xem le képp moom la alquran ni fahum shuraka'u fii sulusi loolu nag moom la ñuy wax sarika ñaareel bi ak yonent bi nee naa ana saalisu sarikayni ñaar buñ bokkee fas dara man maay ki leen ñetteel feek kenn ka xur moromam maa lam yaqun ahaduhuma saahibahu fa in xaana ahaduhuma saahibahu xarajtu min baynihima abu daawuda mu bokk ci hadisi abi hurayra ya mu ne ñaar daal buñ bokkee fas dara luñ mën a fas muy lu yàlla daganal rek man taxaw naa pour ñetteel leen fekk kenn ko xorul moromam bu kenn ko xoree moromam man yonent bi génn naa ca jamono ji koo fas ak dara mu la moo tax yonent bi génn ca barke génn ca kon loolu tamit jullit ñi dañ ko doon def bokk associé bokk alal di bokk di liggéey muy meññ ngeen i séddoo daana xam ci jamonoy sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam xeeti jëflante yooya taabiyoon dañu ñëw topp ko taabiyoon taabiyoon dañu ñëw topp ko wax naa la ko moom tamit nag ñaari xaaj la bokkaale goo xam ne bokkaale moomeel la ci pas-pas kooku mooy tey bokkaale ga dañoo bo lu mat ñaar mbaa ñett wala juróom wala fukk wala lu ko ëpp ñoo bokk génn kër wala ñu bokk benn suuf mën naa xam dañ leen koo mayoon wala seen baay a deewoon ñu donn ko ca wala dañ koo jëndoon su boobaa ñoom ña ko bokk ñoo bokk njëriñ nañ bokk dëkk rek ñu ñëpp bokk dëkk mu jeex su fekkee bokkuñu dëkk nañ bokkuñu luye ko lu cay génnee ca xaalis ba ñoom ñëpp ñu bokk ko séddoo loolu dangay xam léegi ñaataa fi dee bàyyi fi seen kër yi seen njaboot ga te muy raasaguñ ko loolu sarika la bokkaale la ak bokk taxaw na su boobaa kon lépp lu génnee ca alal ja rek ca kër ga ñoom ña war a doon bàyyi ja yépp ñoo ko moom buy jabar yaag doom ya lu ca génne ñoo ko war a bokk su ko defee euh, euh, séddoo ko euh, loolu la ci lislaam bëgg bokkaale gi nag du dagan ñi bokk dara suñ bàyyi dee bàyyi ñu kër gi mbaa ñu mayoon ñu ko wala ñu bokk ko jënd man ma cay soppandiku te fekk yow d'accorduloo ci ma cay soppandiku nu wuute na nga cay soppandikoo déedéet ñun kay ñoo bokkul lépp kenn ku ne ña ngi jariñoo jëriñoo léegi sa morom di jariñoo ñoo war a xemoo ca njëriñ ga loolu lislaam bëgg bu yooyee dàqoo dagana tut kooku mooy sarikatul amlaak am na ci lu ñuy tuddee sarikatul uquud pas-pas ba lañ bokk mooy ñaara bokk fas dara wala lu ko ëpp ci am njaay su ko defee ñu ne ñoo bokk lii suñu alal yaa joxe dara ma joxe dara ñu bokk jënd ko marchandise di jaay bénéfice boobu ñëwee ñu séddoo ko bu pertement ñëwee ñun ñaar ñëpp ñu bokk ko. xeet yu bëree bëri la boo ko doon tëkk ñeenti xaaj ñeenti xeet la bi ci njëkk moom dañoo sarikatul inaan bokkaale gox bi ndax boo dañ tuddee ko sarikatul inaan ñoom ñaar dañoo bokk alal ji di ca yaxantu bénéfice boobu ñëwee ñu séddoo ko ñoo ca xem képp fa mel ni ak gox bu alal ji bu doon buum kenn ku ne nga ci benn car kooku mooy sarikatul xinaan ñoo bokk luñ joxe ci som bokk lu ñuy def kenn du wala mu nekk sarikatul mufaawada kooku nag mooy dañoo fas ñoom ñaar ci bokk di fàggu ci xalal ak ci jëmm nga xalal joxe sa jëmm sa doole ñi bokk kenn ku nekk warlul moromam ne euh, euh, euh, lu ca mën a nekk yow yaa ko gàddu lu ca mën a nekk tamit kële moo ko gàddu loolu mooy mu faawada mën nañ koo firee ci neneen ñaar ñu bokkaale ci ak ci jëf ak ci alal bokk di fàggu ak di soppandiku bénéfice ba nekk ci seen diggante pertement ba nekk ci seen diggante ñi bokk ñoom ñaar ñëpp di liggéey mën nañoo bokk benn place waaye nag lu ca mën a yàqu ca kooka la muy liggéey moo koy garant moromam ma kële lum yàqati mi yaa koy garant kooku mooy mooy sharikatul mufaawada loolu tamit dañ koy sartaal eh, bokk nekk benn xeet façon xaalis ba ñuy bokk nekk benn xeet benn marchandise eh, mu nekk benn xeet benn façon ñaareel ba xalal ja dafa war a xem ñoo ñaar yëpp dañoo bokk luñ joxe ñetteel ba dañoo war a xemoo ci soppandiku ga bu ñu bu ñu wutee soppandiku rek daganut kii nekk xale ku mësoor ku mësoor agut dem bokk ak alal ku mësoor daganut ndax kii lim man kee mënu ko dañoo war a xem kii bu nekkee jullit kii nekk xéeféer xaraam na ñoom ñaar ñëpp ñoo war a nekk jullit mbaa ñoom ñaar ñëpp ñu waaye mu benn ba neexee la kenn nekk wet rek loolu xaraam na nekk tamit kenn ku ne ci ñoom ñaar nekk garante ci sa morom mu jeex mu des nag ñetteelu xaaj ba mooy ab abdaan bokk ci jëmm bokk di liggéey joxe woo joxe wu ma waaye jëmm yaa bokk yi liggéey lu ca génnee ca njëriñ la ñi bokk ko kooku mooy ña ngay liggéey ñoom ñaar liggéey buñ xam bénéfice ba la cay génn ñoom ñaar ñi bokk ko kooku dagan na ñaareel mi ngi gën a amee ci ñaar ñoo xam ne ay menuisier lañ wala ñu nekk ñaari tëgg duñ ko xëy ñu xëy rek nekk ca wala ñu nekk ñaari tailleur ñoo bokk lu ñuy liggéey wala liggéey a jege lool lépp lu ca génne ca liggéey ba rek tabaarakallaahu ñoo ko bokk man naa nekk sax benn maçon ak koo xam ne coffreur la man damay maçon laa maay tabax yow nga yore say bant di coffre ñu bokk gañee euh, bâtiment bi fu ñu yeggee ci wàllu tabax ma tabax fu ñu yeggee ci wàllu coffre nga coffre su ko defee lépp lu ca génn ca xaalis ba ñu bokk ko séddoo noonu mooy li la gën a jege pour nga mën koo dégg kooku mooy sarikatul abdaan am na lu ñu tuddee sarikatul wujjoo mooy ñeenteelu xaaj ba mooy kenn day dem jëndi ci loo xam ne xam na ko ci marchandise bi man kat sama xam-xam ci wàllu marchandise mooy tis muy morso kii ñëw ne man li ma xam ci wàllu marchandise mooy télévision ñu jël alal ja kii dem xaaji jëndi lam xam kii dem jëndi lam xam ba ñëwee ñu bokk jaxase ko jaay lépp loo xamee ne génneekoo na ca ñoom ñaar ñi séddoo ko bu pertement ba ñëwee pertement ba dal ci seen kaw ñoom ñaar ñëpp kon lii mooy buntob associé bokk alal mu ngoog wax naa la ko ñeenti xaaj ya mu nekk maanaam euh, sharikatul inaan ak sharikatul mufawada ak maanaam sarikatul wujuh ak sarikatul abdaan yenn yu ca nekk wax naa la ko ni ko lislaam d'accordé waaye bokkut ak léegi li xew di di sëy ak nit ngay jëkkër muy jabar ngeen wax ne yéen ñaar boole ngeen seen am am yi bokku leen lu ngeen liggéey bokku leen lu ngeen am seen wërsëg yemul ngeen nekkat sama xalal mooy sa xalal sa alal sañ naa cee soppandiku sama alal sañ na cee soppandiku ngeen nekk ci signé loola nga dee sa sa sa yi boo amul doom duñ mën a doon ci alal ja yéen ñaar seen sëy ba bu bu doom xamul te sëy ba rek problème am na bu ca doom amoon nag seen doom yaa moom alal ja mu jeex waaye tey doom amu ca mbokki ku jigéen ci bu ñëwee am problème mbokki ku góor ci bu ñëwee am problème kon signé yooyu ñu signé tam mu nekk lu xew te jëlee wuñ ko lu ci tubaab yi daganut dafa xaraam li lislaam xam daal jëkkër lu mu néew néew doole moom moom xalalam xalal ja lum néew néew ci la war a yore jabaram jabar lum bëri bari xalal moom moom moom moom moom alalam lu ko ca neex ku ko ca neex sañ na koo defal buy dimbale jëkkëram nag ci kër gi di ko si jàppale yàlla fay ko ca loolu daal la lislaam xam waaye jëkkër ak jabar bokku sëyee nañ seen xalal mu nekk génn ak moomeel kenn ku ci neex indi si nàngam problème dong lay doon yàlla nee na jaxasekat yëpp fu ñuy mujjee mooy jaxasoo rek way na minal xulataay la yabxi ba'duhum alaa ba'din kenn mënu ci dara foo fekk ñu jaxase alal fa ñuy mujjee mooy jaxasoo rek jaxase ak jaxasoo mënuñoo dàqante de boo ma toppee suba ci waxtu wi ma dugg ak yow ci buntab tayle lan mooy tayle tayle daal mooy ñëw nga bëgg a jëflanteeg man waaye wóoluwuma la ma ne la bàyyi fi garante su boobaa sariya day wax na nañ fi bàyyi garantie bu toll ni li ma la jox ci xaalis toog nga ba nawet jot nga ne damaa soxla fukki junne ma ne dama indi sa machine bi nga indi sa machine bi ma tëj li lislaam wax ak ni ko nit ñi defee du benn lislaam dafa ne buñ demee jamono ja jot moo indi la sa fukki junne jox ko sa machine bu ca teg dara loolu lislaam bëgg su fekkee ne nii dem na waxtu ba ngeen jotoon jot mënta indi xaalis ba sariya nee na jaayal machine ba soo koy jaay ñett mën a am benn nga jaayee ko net la nga ko fayle woon muy cinquante mille kon rakkati ko ngeen mu dem mu dem rek jeex na wala nga jaayee ko lu gën a néew quarante mille kon demal topp ko ñaari junne ni ko yaa ngi ma desal ñaari junne ba tey wala nga jaayee ko soixante mille kon yëkkatil ñaari junne yi jox ko ko ne ko moo dollee ko sa machine bi ma tayle woon kenn defatu ko gars yi kay dañuy ñëw tayle la jox la ñaari million nga bàyyi fa bagage ñaar fukki million nga dem wuti sëriñ ne yàlla bu mu ñëwati ndax ma man caa kaañu nga toog di ñaan buy waajee ñëw benn fan rek nga dem jaayi ko su ko defee jël lépp lekk ko li nga lekk xaraam na de loolu loolu daganut boo ma toppee suba danaa la ko wax ak prix yi nga xam ne dañ fixé prix lu ci lislaam wax ak kan moo sañe fi fixé prix ak bu buñ fixé prix bi ndax nit am na droit di ko yokk lu ko xëpp dinaa la ko wax boo ma toppee suba dinaa la wax tamit mbiram istikaar jënd ceeb wala nga jënd dugub wala mboq stocké ko ba nawet li ñu soxlaa bëgg a lekk amul ñu lekk nga yokk prix ba danaa la ko wax naa la yóbbu ba ci dénkaane ak lu ci lislaam wax boo ma toppi naa la yóbbu ba ci ijaaratu mooy li ma la waxoon ba euh, liggéeyal nit ki bu weer rek nga fay naa la dugal ci buntab joxal euh, mooy defal ma bu sottee ma fay feek euh, li ngay def sotteegut du la jox benn dërëm waaye yooyu yëpp mi ngi ci suñ kanam boo ma toppee suba ci waxtu wi wa axiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin wa salaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu